Aja mbokk taalibe yi mbokki internet yi mbokki àdduna yéen ñu ñuy suivre ci plateforme sekian, gis ngeen ni ñu ànd ak ci liggéey bi mu jëm ci présentation nag yi comme ni sang bu tedd bi diglee moom soxna ci kanam tuuti daañu dajee fu ne nga xam ne mooy ci enclos bi ñu def présentation bi waaye dugg ci këru boppam gi wan leen li nga xam ne moom moo jëm ci condiment yi ndax fii mu ne nag yi lañ leen wan gileem yi lañ leen wan waaye lépp loo xam ne rek dafa jëm ci màggal gi moom soxna su tedd si jënd na ko ba mi ko teg mu jëm ci wàllu condiment yi